jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb mbokk yi nuy nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne bu ngeen gisee kii ñu toogal nga xam ne ñeen ñu bari ci làmb xam nañ ko muy Assane Fall borom global textile mu nekk koo xamante ne vraiment day safoo wasaare làmb wasaare làmb duggee ci cent mille abonnés ba ñu jox ko raay bi jot na ñu ñëw ci moom seet si ko delloo ko njukkal bàyyi ko mu nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu wéel waxtaan Assane maa ngi lay nuyu baax di la siyaar salaamaaleykum bàjjili mm. ñu ngi lay fay mm. di nuyu mboole ki nga xam ne mu ngi suivre Wassare Lamb mm. ah, di am kontaan seen teewaay bi tey di baalu àq avant tout si koor gi tey baal ñëpp àq te di ñaan yàlla Sénégal jàmm sax fi ah, ak gan gi ñëw fi mu ànd ak naataange ànd ak wërsëg bu déwénee mu doon xéwal yi ubbi barke alxuraan nga nekk nit koo xamante ne vraiment ci dama lay gis ci làmb mm. lu ci baree bari Assane amateuru làmb la mm. day ñëw ci làmb mm. di ci teew ci journée yu mag journée yu ndaw xeebul benn journée lan moo la dugal ci làmb làmb euh, dafa nekk loo xam ne suñu culture micro dafa nekk loo xam ne suñu la nekk loo xam ne li tax ma bëgg ko mooy dañ see juddu mm-hmm. juddu di seet di suivre làmb gi suñu parent yi di ko seetaan am na mbégte am na mu doon mu doon lu lu lu lu loo xam mbégte la mbégte la daal. Mm. saa su ak suñu liggéey bi commerce ku ne xam ne dafa métti. Mm. bu ñu bëggee stress bi wàññeeku dañuy dem seetaan làmb gisante suñu xarit yoo xam gëj nañu gisee. Mm. toog heure gi ñu taal si oto ñibbi. waaw euh, mais Assane ci làmb kan nga seqal loo xamante ne parce que yaakaar naa mbër yëpp say xarit lañ. Mm-hmm. ñoom ñëpp am nga ak ñoom relation bu rafet mais am na koo ci doon topp ba am cofeel ci làmb ba mu dugal la ci làmb. waaw moom euh, mbër yëpp samay xarit lañ. Hmm. Euh, Balla Gaye numéro 2. Hmm. Euh, ma koy nuyu Omar Sakho. Hmm. moom topp naa ko Mbapat. ah topp naa ko Mbapat. topp naa ko Mbapat boobu lañ gën a nekk xale parce que fi mi laa juddoo. fi mi géejawaay fa lañ juddoo. màggee fa te it lépp ñu fekk parcelle. waaw mm. loolu moo tax mais à part ça mbër yëpp yëpp yëpp lay gën a màgg dem nañ amatuñ mbër parce que mbër yëpp suñu xarit lañ mbër yëpp dañuy deflante ñoom di demlante ñoom mm. loolu mu ngi suñu diggante ak làmb mm. waaw nekk ci keppaar boo xamante ni Modou Xarañ Lo fii lay yeewoo le roi des arènes euh, sa diggante ak ñoom ay yenn mbër yi nga xamante ne ñu ngi ci écurie ba asan ah, damay gis mbër yi daal seen diggante nekk na diggante boo xamante ne diggante bu ratax la waaw loolu lan la ah parce que commerçant commerçant yow day dem ba yow dootoo moom su bopp Moodu sama xarit la Moodu seen waa kër yëpp samay xarit lañ. sant loo Ibu grand Ibu. Mm. ñoom ñëpp seq na ak ñoom loo xam ne wallahi azim sequma sax ak waa kër Géejawaay. Mm. waa waa kër Balla Gaye. Mm. barke alxuraani karim. waaw di eh, ak waajuram di noppale ko. ñu koy ñaan suñu borom xarit àjjana. suuf eh, yow suuf eh, si kawam mu doon ko baax. bañ gën a nekk booy bu ñu dem. di wuti jaay ji tissu hmm. di ko jaay ji hmm. moom lañ doon xaar mu yóbbaale ñu te duñu fayeeku hmm. mu yóbbaale ñu ba wàccee suñu bagage ñu lal lal marché poisson heure bu guddi gi moom dañ koy xaar guddi gi buy dem dañu yóbbaale yóbbu yóbbaale suñu suñu bagage bu demee jaay suñu si joogu ñu si kon nga xam ne si defal nañ ma defal defal na ma loo xam ne am na ñoo xam ne séqu ma ko defal ko mais lam moo dem noonu àdduna lay gën a ma dem ngay gën a mën a am ay yeneen nit yoo xam ne dañuy ñëw di la jàppale sa carrière mm. waaw Père Gora bokk si ñi jàpp nañ sama yoonu liggéey mm. waaw muy papa Modou Lo yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana mm. eh, des fois doo am ñaari mbër yoo xam ne say xarit nañ ñu war a bëre kii ñëw ci place bi keneen ki ñëw fi daje fi wala loolu musul am ankay ankay ankay ku mel ni buuse alaaji mbay dal na ma fi ah, ku mel ni wulli liiru jaan dal na ma fi ku mel ni soq mobile dal na ma fi Ramdan mobile dal na ma fi mais ñoom ñëpp dañuy xam ne carrément kii du lamb la ñu toppee. Mhm. parce que aw ma aw ma jot boobu du làmb. dañuy xam ne kii xarit parce que nit da ngay am sa xarit nit da ngay am sa nit. dëgg la ku si mobile démb rek mu mooy may woo démb démb rek. dama andi naa la sëriñ ah, <laughs> du dara du dara ñëw na de day <laughs> <laughs> du dara ñëw ñëw na de bii Sénégal day mhm. kon nga xam ne yooyu yëpp jàmm ak kóllëre. moom moo tax loolu ak li nga xam ne wan naa leen ko hmm. parce que du leen woon lu ñàkk fay du ma leen woon ndax làmb dama leen woon lii ak lii lañ jàppantee hmm. noonu laay jàppee doomu aadama hmm. waaw est que tey xalaat na ñëw bis jot euh, lu mel ni global textile tëgg benn journée boo xamante ne vraiment da koy dijjee ay ay ay mbokkam wala ñi nga xamante ne ñooy ñëw ci moom ay client am est que bis boobu tey yaa ngi koy xalaat waaw loolu moom bokk na boo gisee ñu gën di suivre làmb parce que njëkk si li nga bëgg rek si loolu nga mën a dugal sa xaalis. Mhm. parce que bëgg naa làmb. Mhm. te am naa yaakaar ne dinañ dem ba incha allah rabi global textile tëgg làmb te loolu am naa si yaakaar. te si kaw ah bu soobee mhm. bëgg nañ tëgg journée tax xam naa yéen ñëpp si jàpp. incha allah allah dina li ma maa la ko wax tey. bindal bokk na suñu projet. waaw tey nag euh, client yi nga xamante ni euh, ñu ngi jëm ci. ñu ngi ci weeru koor bi ñu ngi jëm ci korité bi koor gi ku ne xam ne ni jàllaabe yi da ciy baax ci kilifa yeeg mm-hmm. xale yeeg mag ñeeg ndaw ñi mm-hmm. euh, lan nga leen di wax ci ci ci global textile waaw waaw global textile ñun dañuy def dañuy baaxoo mm. tout temps dañuy wàcceel euh, suñu client li nga xam ne moom lañ gën a bëgg mm. parce que ku ne góor góor ñi amul jotu ñaw parce que koor gi jege si dañu soxla jàllaab yi ñu julee jàllaab yi ñu demee naafi la hmm. parce que bëgg andi beneen niñu beneen manière daanaka jikko yi tilimul sax beneen hmm. manière boo xam ne moom lañ bëgg di ko utiliser hmm. wan ni carrément ñu ngi si bërëbu l'islam waa magal magal lu mel ne weeru koor war a tout le temps dañ leen andi ay produits jàllaabi comme yu mel nii ay yeneen produits motifs yu bëree bëri mu ngi ci biir place bi te pare mooy cher waaw loolu mi ngi fi ay jàllale ay filafil basin riche jasner til bordé bàyyiwuñ dara bagage hmm. boobu mu di soxla mu ci biir global si bi hmm. waaw euh, loolu moom xam naa ñun ñoo ko ñun ñoo ko ci def ndax hmm. nit koo xamante la vraiment bu bëggee làmb lépp loo am ci làmb dañuy dañuy dañ lay ñaanal yokkute am na bis boo am na làmb joo xamante ni tey boo ko doon xalaat ci say làmb yoo dem stade wala làmb boo xam ne seetaan nga dina la marqué loolu loolu ban làmb la waaw euh, làmb gën a marqué ci làmb mu doon lu ma bett mu doon làmb jox dama see gis sama bopp Modou Lo Eumeu Sène bii parsi bii paase. waaw Moodu Eumeu Sène waaw Moodu Eumeu Sène di tam mu ma àdduna bu méttee boo muñee rek muñ ci loolu laa loolu laa mën a jànge li may dem stade yëpp làmb ja bokk na lu ma gën a marqué muy Modou Lo Eumeu Sène mhm. parce que gis naa Modou ba muy départ dem stade mhm. mhm. wéet na wéet na wéet wéet goo xam ne moom kese teel na boppam làmb ji Modou boo xoolee ñu nekk si ginnaaw amul benn mag bu si nekk. Hmm. am na ngëm-ngëm ngëm-ngëm mu am nag ak vision boobu mu am. Hmm. looloo gën tax mu marqué nga xam ne ndaw loo góorgóorlu yàlla dimbali si. Hmm. loolu gis naa ko. mu téye titre roi des doon loo kenn xalaatu ko. wallaay kenn xalaatu ko ñun ñu def parti kenn xalaatu ko. waaye dem na fi mu teg bëtam mooy fii la teg bëtam te war na ko mën a am donc képp kuy ndaw rek war nga mën a bàyyi xel Modou. waaw. combat boobu dafa bëri Balla ngay 2 ñàkk. ci stade yàggul tuuti mu jël Eumeu Sène waaw ba pare Eumeu Sène teg titre roi des arènes di ñaan revanche. ok ok mu jël ko. Euh, vraiment wax nga dëgg parce que làmb jooju maa ngi rappelé wul Modou keroog mobilisation bi ñu waroon xaar. ci moom sax gisuñu ko ci moom demul demul. ndeysaan ñun parcelle lañu dëkk. Hmm. demul ñu bëri demuñ parce que. Hmm. Euh, parcelle parcelle bëgguñ ko ku ñàkk fayda wala. Hmm. koo xam ne mel nga nii. ay Modou Karo ba mu ñëwee dafa woon waa parcelle carrément Modou bu ngeen xamoon démb ba tey moo fi ne si jom si fula. Mm-hmm. loolu gis nañ ko si moom mm-hmm. moo tax marqué na ma parce que léegi mu marqué ma dama siy gis sama bopp mm-hmm. dama bëgg nit boppam nit koo xam ne am na vision ne lii moom lay jëli lu si xaar bàyyi jil lu si xaar kenn dëgg la moom laay jëli te naa ko amal sama bopp loolu laa gis si làmb ji moo tax mu doon keroog bu may nekk saat mu doon lu ma marqué ma ne kii Modou mi même bu làmb kii mun na am lu ne si àddunaam waaw ma lay jaajëfal bu baax Assane kontaan naa ci teew bi nga xamante ni teew naa fi ñëw seet si mm. yow moom kontaan naa ci bu baax maa gën a kontaan moom frère yow mm. sama frère nga mm. yow sama frère nga sama nit nga tey si biir xam ne lépp lu ñu mun soxla ci information làmb su ma jaaxle damay dugg xool ko di ko seetaan guddi gi ah kon lii bu ñëwee dañu koy sante yàlla ñaan yàlla mu yokk amiin yaa rabbal ñaan yàlla mu yokk mu ànd ak ba mm. balaay déwén lu gën li ñëw ci barke alwala parce que liggéey rek a wóor mm. loolu liggéey ngay fayeeku waaw youtube ñaata ñaata si internet ñoo fi nekk kenn mm. xamul mu toll kon bu lii ñëwee dañ koy sante yàlla bu baax a baax mm-hmm. ak jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom Assane Fall Global Textile di ko ñaanal jàmm mbokk yi di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ci beneen xew-xew làmb jërë ngeen jëf